asalaamaaleykum euh, mbokki yoof ñu ngi leen di nuyu vraiment nuyoo bi gën a sell ku si ne ci turam ak santam di leen euh, ziar di leen baalu aax di massaw jur yi ci ouverture euh, classe yi nga xamante ne nii moom la ñuy dërmal tey dañu fi ñëw en tant que représentant mairie Yoff suñu kilifa la ministre maire Abdoulaye Diouf yabal ñu Je y a waxtaan population qui a leen li nga xamante ne ni moom la euh, muy le jeudi 12 novembre 2020 à partir de 10 heures l'inauguration inauguration l'école Kenjiro toujours dans le contexte euh, concept bi nga xamante Abdoulaye doon doxal ci école yoof yi muy le concept ubbi tey jàng tey ñu war a def lancement concept boobu defaale ko fii nga xamante ne nii aussi moom mooy kenn juro jël élèves yi jox leen ay fournitures yi nga xamante ne nii dinañ mën a démarrer seen ay cours te duñu xaar ñu ne dañu koy defee kenn juro jour boobu aussi dañuy procéder waale à l'inauguration même de l'école kenn juro ñu koy defee. ci ci ci ci école bi à partir de dix heures ñu ci woo ñëpp ñu ci woo kilifa yi yoof yëpp képp koo xamante ne ni parent d'élève nga sa doom di jàng kenn juro wala nga dëkk ci zone bi nenaa tongoor ñu ngi lay woo ci bës boobu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dina ko teewe ak euh, partenaire am yi nga xamante ne ni ñoom la doon àndal bu ñuy liggéey euh, école bi ah la coutume ah la commune ñoom ñëpp ñu procéder à l'inauguration euh, de l'école ñuy invité ñëpp nag mag ndaw góor ak jigéen képp koo xamante ne ni sentir nga sa bopp ci école bi wala zone bi nga participer bëgg li nga xamante ne nii moom mooy développement commune de yoof ñu ngi lay invité si bés boobu nga ñëw teewe ci inauguration école boobu euh, dina am suñu ay ndaw yoo xamante ne nii li nga xamante ne moom la ñuy wax concept ubbi tey jàng tey ñoom dinañ continuer ni ñu ko doon defee le jour même de l'ouverture Eh, dem ravitaay yenen école yi nga xamantene ni euh ñom ño nek ci commune bi ba nga xamantene ni élève élèves yi bu ñu tijjee rek dinañ leen mëna a seen ay futur ñu commencé li nga xamantene ni mom moy seen ay cours di woowaay yof gépp ci bés bi di profiter aussi occasion bi di féliciter monsieur le ministre maire Abdoulaye Diouf ci taxaway bi nga xamantene ni amna ko ci école eh, Kenjiro ba tay ji élèves yi fa ñu leen casé woon ñu war fa jóge war delluwaat si li nga xamante ne nii moom ma école bi ñu si sant yàlla bu baax di ko gërëm di ko sant di leen ñaanal yàlla yàlla wàccee jàmm ci dëkk bi yàlla continuer di ko taxaw lépp looy xamante ne nii doomu tànk la président dénk ko ko muy jëriñ yoof di taxaw yoof yàlla na ko yàlla accompagne si yàlla téyel ko ko yàlla gunge ko aar ko ba lépp lu mu jublu rek mu mën ci am ndam incha allah rabbi gërëm sant nañ ñëpp jërëjëf